qui ont réussi un de recouvrement plus que satisfaisant. que les avocats qui en avaient dû verser, en suñuy mbokk ma ñëw tey ñu waxtaan tuuti ci li nga xamante ni fusion fës loolu la tënk loolu la taxawal muy suñu mutuelle de crédit d'épargne mooy lan mooy koom bi nga xamante ni dañu koy jël di ko jàppale ñi nga xamante ni ñoo bokk ci fusion fës koom boobu pour lan pour ñu jëm kanam te balaa ñu leen koy jox dañu leen di tàggat dañu leen di ànd ak yéen di leen tàggat ba xam li ngeen soxla li ngeen soxla ci seen organisation li ngeen soxla ci koom-koom pour lu jëmale seen liggéey ca kanam ndax gis nañ ñi dañ leen di jox ay financement ngeen di doxal te du mujj fenn ndax dañuy jël bénéfice baak lañ ñu financé lépp daat koy delloowaat ci kër gi ñu yaakaar ni buñ la tàggatee ba nga xam loolu ñu la jox lum lay jariñ loo ci war a def ak naka nga koy jëfandikoo dina la amal njariñ fusion fos yamul foofu dafay ñëwaat am mutuelle de santé ci li ngeen ko gën a xamee déedéet yamul foofu de daf koy def assurance de santé lu ndax assurance de santé ndax bëgg na jigéen ki mu tàggat boppam tàggat njabootam ci wér-gi-yaram ndax nit kat su amee financement te amul wér yaram du mën a dem du mën a fay financement bi te du mën a liggéey bu jigéen gi tàggatee boppam ci wér-gi-yaram ak naka lay def ba faju ak naka lan moo koy yombalal ba faju moom ak njabootam su boobaa yaakaar nañ ni dina mën a faj boppam faj njabootam ba fajaale ci borom këram ak ñi ko wër ñu jóge foofu fusion fos yamul foofu fusion fos dafay ñëw dem ci euh, euh, transformation waaw ndax am nañu ay ndaw yoo xamante ni dañuy bay ñii dañuy def transformation fusion fos naka lay jàppale ñooñu day ñëw tàggat leen tàggat leen naka ba ñooñu mbay boobu ñu nekk transformation boobu ñu nekk da ci jàppale finance leen ba ñu mën a defar seen mbay boobu def seen transformation boobu du ci yam de ñu def ko transformation bu mucc ayib bu mucc ayib nan mu am qualité qualité ba nga xamante ni foo ko teg ci Sénégal mu mën a jàmmaarloog ñoom ba tax ñu yóbbu ko nag ba bitim réew naka la ko fusion fës di defee mu delloo ci financer leen ci tàggat leen pour ngeen liggéey lu am qualité bi ci yam de day ñëw jëndaat loolu ngeen xam ni moom ngeen liggéey su ko jëndee mu jël ko mu def ko ci labelu fusion fës li nga xamante ne ñoo ko bokk mu daati koy defal packaging packaging boobu mooy mu def ko ci ay emballage yu bu rafet yu mucc ayib ba pare continuer di ko jaay ci biir Sénégal ba bitim réew kon defe naa ni loolu jàppale jigéen ñi la ndax am na ñoo xamante ni dañuy liggéey di def transformation te du ñu xam fu ñu koy jaayee am ñu am financement ci bay ba mu yegg du ñu xam fu ñu koy jaayee loolu moo tax Fusion Feuss nekk une un entreprise autrement beneen façon entreprise beneen façon GIE boo xamante ni bokkul ak GIE bi ngeen daan gis mooy fusion fës bu ñu jógee ci loolu mu taxawal benn programme moo tudd conscom muy lan muy que ni daf lay defal loo xamante ni ki sa li ngay liggéey ba nga xamante ni dana mën a yegg bitim réew dana mën a yegg ci gox-goxaat yi nga xamante ni ñoo nekk biir Sénégal fusion fës yamul foofu de mu ne dafay def coopérative coopérative mooy ban bi nga xamante ni suñu kër yi dañuy soxla ceeb dañuy soxla diwlin dañuy soxla netetu di soxla géej di soxla jën di soxla leneen ak leneen te loolu ñun ñi ci biir Vision Fës dañ koy liggéey di ko jaay te du dem fu sori ñu bëgg ñu ñun ñu jënd ko ci suñu biir ñu jàppalante suñuy dëkk ak suñuy gox ak suñuy dëkkandoo ñu jënd ko Vision Fës da jàppale ba loolu loolu day nekk marché bu ëpp marché bi nga amoon déjà amoon nga ay clients mais ñi nga bokkal biir Vision Fast dañuy jënd ci yow duñu jënd ci keneen ku dul ci yow ba pare di vulgariser sa di maanaam siiwal sa li ngay jaay ndaxte dañ lay tàggat ba mu nekk qualité bu weesoo loolu ak Vision Fast jigéen jaaxle jeex na lu tax jaaxle jeex na lu tax jigéen jaaxle jeex na ndaxte fii jigéen lu fi taxaw moo ko taxawal jigéen mooy yaay jigéen mooy jabar jigéen mooy jigéen jigéen mooy rakk jigéen mooy mag jigéen mooy bàjjen kon jigéen fopp foo tourné rek jigéen mi ngi fa elle est incontournable comme jigéen mooy première mooy dernière ndaxte suñu weesoo jur doom ñoo koy nampal ñoo koy tàggat ñoo koy dundal suñu jógee ci loolu ñoo koy sàmm ndax ñoo koy téye ci kër gi di ko yar di ko taataan di ko teg ci yoon dëgg la nag suñu borom kër yi dañuy jàppale waaye dañuy ne dañ daan faral di wax naan derrière tout grand homme y a une grande dame mais nekkatuñu foofu nekkatuñu foofu à côté de tout grand homme y une grande dame à côté de tout grand homme y a une grande dame ma woo di ñaax ngeen ñëw ànd ak ñun ci fusion fës maanaam mbooloo jigéen ñi nga xamante ni dañuy entreprendre dañuy jaay dañuy faj dañuy yar dañuy jënd defuñu dara ñu di leen won naka lañuy des dara ba mën a gën a jàppale askan bi jàppale njaboot gi loolu mooy Vision Fës te yamul ci Sénégal dem na ba Afrique dem na ba monde entier ndax fusion post am na France am na ay membre France am na ay membre Canada am na ay membre États-Unis am na ay membre itali am ay membre Gambie sans compter les quatorze régions du Sénégal ma leen ñi woo ngeen ñëw ñu ànd ngeen ñëw ñu booloo liggéey booloo liggéey Sénégal ba tax ñun Sénégal lépp lu mu soxla muy gouvernement muy ku mu mën ci doon bu mën a wër fenn fudul fum koy amee fudul si fusion fës parce que dina boole secteur yi ngeen xalaat yépp ci àdduna ñu bokk àndandoo joxante loxo di liggéey wasalaam consultante en tant que coach en entrepreneuriat te xam naa ni euh, nu ñu koy waxee charité bien ordonnée commence par soi

waaw ah, wet nañ ci xeex bi kay ndax bu ñu taxawalee lu toll ni keppaaru Vision Fast def ko tournée bëgg ko def Dakar def ko Thiès def ko Casamance woo suñu naataango yëpp jël problématique yi xew ci entrepreneuriat ñu dindi ko indi ay solution teg ko en tant que vision des entrepreneurs du Sénégal tey soxla nañ ñi nga xamante ne moom la président Macky Sall dénk leen ko pour mu gunge ñu ndax teg na ko fi de teg na fi ay dispositif d'appui pour la femme entrepreneur teg fi ay dispositif d'appui pour les jeunes entrepreneurs fii ngeen may gis aw ma dara waaye tey jii formaliser naa plus de deux cent jeunes yoo xamante ni maa leen defaral registre de commerce ak nii yaa may leen ko ci sama poche te amul benn kilifa bu fi réew mi teg te sama lettre ñëwul ci yow ma koy jaarale ci directeur de l'emploi di ko jaarale si euh, nuñ koy waxee euh, ministre de l'emploi di ko jaaralee ci ñi nga xamante ni moom lañ dénk ay 3FPT ñi xam moom lañ dénk DER ainsi de suite ainsi de suite parce que kuy bindalaate projet pour que nga am financement projet yu bari su ma ko bindee bu ñu ko dugalee ñu am financement mais ña koy dugal dañ ma naan bind ko rek dina jàll ndax sama yaay fa ne wala sama papa fa ne man nag kom sama yaay nekk fa sama papa nekk fa sama tante nekk fa a ah, xam naa peut-être loolu moo tax te politique ma damay politique nag parce que dama bëgg jigéen ñi ñu am seen leader bu bopp ñun mais une politique autrement affaire yi yomb ci ñoo ngi politique sëñ bi ndax euh, politique yonent bi salallaahu alayhi wa sallam moo ñu ko jàngal te ni mu ñu ko jàngalee nekkul ni dañ la war a topp yow en tant que leader bu nekk ci koñ mais ñun dañoo war a toppante en tant que nos valeur dañoo war a toppante en tant que nos projet tey jii ci eeru projet lañ toll. eeru wax su ma àndee ak yéen fii laa leen di yóbbu ñun gisaguñu ko. suñu gisee ku ñuy wax fii laa leen di yóbbu ñu ànd ak ñoom politique ndax politique bi ñu bëgg mooy suñu jigéen yii li ñuy liggéey mu jëm kanam suñu amee képp ku ñu ci jàppale dañuy ànd ak moom ñoom dinañ ma xàmmee ci caméra ndax toog naa ceeg ñu bari mais amul benn suivi amul benn retour te je le déplore te xam naa ni tey ji bu doon Macky Sall lañ toogal dina ko métti lu lool ndax santu leen lool bëgg mu law moo tax ñuy taxawal stratégie boo xamante ni xam naa ni naa benn yoon ngeen ko fi dégg Macky Sall moo ne dafay toog def fi cinq ans ñun naa dañoo teg un projet naa quinquennal ñu ne 2022 lañ judd 2022 dinañ fexe ba dajale ay jigéen yu bari ñu ñëw ànd ak ñun ñu toll ci programme mu 2023 ñu ne 2023 su lee juddoo ba ñu dajale nit ñi dinañ ànd ak ñoom tàggat leen ci état d'esprit ba ñoom ñu mën a nekk entrepreneur yi ñuy bëgg woote yi ñu naan moom la ñu bëgg a doon ñu mën ko doon ci loolu la ñu toll di sensibiliser jigéen ñi di leen defal ay formation am nañ suñu plateforme digitale boo xamante ni mercredi mardi jeudi vendredi yëpp dañuy def ay formation sur la santé sexuelle pour wax jigéen bi lan moo ko mën a téye ba liggéeyam du dem jigéen bi lan moo ko mën a téye ci environnement ba liggéeyam du dem suñu paree toftal ci ay formation en entrepreneuriat ak compétence de vie pour que yow mi nga xamante ni yaa ngi yore sa entreprise nga xam noo koy gérer nga xam nan ngay def ba mën ci am ay profit mu jariñ la jariñ sa ay jegeñaale ñu leen di woowee ay ayant droit ba jaliñ ñi nga xamante ni ñu ngi si ginnaaw ñoo ngi leen di sant bu baax a baax. présenté watal encore. Marietou euh, présidente Fusion Fës euh, présidente association des jeunes entrepreneurs du Sénégal. consultante formatrice en démarche qualité jërë ngeen jëf on a besoin de mutualiser nos ressources. On a besoin de mutualiser tout ce que nous avons comme force vraiment pour les mobiliser, pour aller vers notre réalisation de développement et d'autonomisation sur tous les plans de la femme entrepreneur. Aujourd'hui, en fait, on se suffit à nous-mêmes. Alors qu'on n'est plus dans cette terre. On est dans une ère où les grandes doivent partir avec les petites et que ces petites-là puissent grandir demain sans pour autant vendre leur valeur ou sans pour autant mendier pour devenir quelqu'un. Voilà peut-être Comment vous comptez quand même faire cet élargissement Avant de répondre par rapport à cet élargissement, je parlerai de l'autre couche. L'autre couche, c'est le gouvernement du Sénégal. Pourquoi le gouvernement du Sénégal Nous, nous les indexons directement. Quand Fusion Fos est née, nous avons eu à mettre en place en fait des demandes d'accompagnement. On ne parlait même pas de financement, mais accompagnement à ce que ces personnalités-là sachent que Fusion Fos existe et que Fusion First est un outil qui pourrait les aider à mettre en place un dispositif de suivi vraiment très sérieux par rapport au financement que nous donnons aux femmes. Il y a des départements qui sont dédiés à ça. Ministère de la Femme, on a déposé trois lettres là-bas. On n'a jamais eu de réponse par rapport à, cette, à, ces, à lettres. À la DER, on a déposé trois lettres on n'a jamais eu de réponse par rapport à ces lettres. À 3FPT, on a déposé, on n'a jamais eu de réponse. Nous, nous savons ce que nous faisons et nous voulons vraiment devenir des femmes leaders dans ce pays, bien qu'on l'ait actuellement, parce que nous participons au développement des femmes, nous participons au développement des jeunes, sans pour autant qu'aucune aide venue de, du gouvernement du Sénégal ne soit reçue au niveau de notre groupement de femmes. au contraire de, de le poser, euh, donc, euh, de mm-hmm. euh, mm-hmm. de ses activités aussi s'impose. Fusion First ne s'arrêtera pas. Pourquoi Avant de naître, on a contextualisé notre environnement. Notre environnement est déterminé par ce qu'on appelle les 3D chez nous. Les 3D chez nous, c'est on pense que l'entrepreneuriat aujourd'hui est une solution. mais malheureusement, c'est une solution à problème. Pourquoi à problème Tu penses que tu peux entreprendre et réussir d'un coup, alors que tu entreprends, mais malheureusement, après une décennie même, on ne peut pas t'appeler entrepreneur. Vous savez pourquoi Parce qu'il n'y a pas de congruence entre ce que nous sommes et ce que nous voulons être. On veut être des entrepreneurs alors que nous ne développons pas d'état d'esprit d'entrepreneur. Aujourd'hui, On est des entrepreneurs autrement, on est autre qu'entrepreneurs. On prend de l'argent dans la banque, on prend de l'argent chez nos politiciens, on prend de l'argent chez nos frères qui dans la diaspora pour investir sur quelque chose qui n'aura pas de suivi technique. Et le fait que ça n'a pas de suivi technique fait que cet investissement-là, c'est un investissement à perte. Au fil du temps, on va décourager. on aura une grande déception. Et c'est cette déception qui nous décourage, et c'est cette déception qui nous démotive, et voire qui fera la disparition de notre entreprise. Et malheureusement, on fera porter le chapeau à d'autres personnes autres que nous. Est-ce que le Peut-être que c'est le fait que moi, je ne suis pas politique. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas encore eu de partenaire dans ce sens. Mais n'empêche, Moi, les partenaires que je cherche s'appellent la femme entrepreneur, vendeuse d'arachide. La femme entrepreneur qui fait de la transformation de ses produits locaux, qui prend le petit Dakar qu'il achète à 50 francs, qui le transforme en jus et qui me le revend à et après il trouve son pour aller au-delà. Raison pour laquelle on a fait de sorte que Fusion Force existe. On a appelé les entrepreneurs de la diaspora qui font partie aujourd'hui intégrante de cette fusion. Et à travers ce que les femmes font ici et ce qu'elles font là on va mutualiser nos forces pour mettre en place une stratégie de développement incontournable. Ils ont